mu yéen yu bëri xëyandoo tey du ñu jàngatal coalition Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien ci googule coalition euh, présidentielle la xëy taxaw candidat bu coalition Benno sas nañ ko njiitu réew Macky Sall ngir mu def tànneef ba Walf Quotidien gis ne tànneef gu nara doy waar mun naa fee jaare tas tasar coalition Benno Bokk Yaakaar bile coalition waa APR bëgg nañu euh, candidat bi jóge ci ñoom waa AFP parti socialiste ak ñeneen ak ñeneen yéen kaay bi ne risque bu rëy la njiitu réew Macky Sall euh, soobu ca war a tànn candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar l'observateur ne risque la goo xamante ne Benno mun na cee daj lu métti métti mun naa dem sax ba tasaaro am ci bélé eh, mouvance présidentielle yéen kaa bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk gannaaw kàngam yi tàmbale wane seen eh, maanaam seen cofeel ak seen eh, bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm te dogal tukkeegul ci njiitu réew mi Macky Sall yéen kaa di tribune ne ci jamono ji gaalup Benno Bokk Yaakaar am na ci ñaar ñoo xamante ne ñanga ca parti socialiste ak AFP bu ñu deful ndànk dinañu suux yéen cabinet ay parti yóbbaale ma ba ba léegi ñu ngi langaamu ci njiitu réew mi euh, Macky Sall ana la ñu dese ci wàllu politique ñoom waa euh, PS ak AFP moom la yéen cabinet turbine euh, bugg a xam yéen cabinet le mandat di ñu xam leeg ñaari candidat yi la muy Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko yéen cabinet bëgg nañu indi lu bees soppi doxalin jëlee fi li fi woon maanaam fexe ba jëlee fi socialisme ak libéralisme indi lu bees ci mu Sénégal bokk na ci li leen tax ci jamono ji ña ngay dagaan baatu askan wi yéen kaabi di le point eh, actu di ñu jàngatal eh, politiku Sénégal ak eh, candidat yi ci tambale yëglu jigéen ñi bëgg nañ cee wone seen bopp Anta Babacar Ngom ne candidat la am Amsatou Sow Sidibé ne dina dagaan baatu askan wi Aïda Mbodj ne candidat la Mimi Touré ba ci Rose Wardini yéen kaabi ne seen ñakk booloo nag mun na leen xañ ndëgër lay ci les élections présidentielles yu 2024 yéen kaabi di yor yor gi ne ci jamono ji am na jafe-jafe ci wàllu yoon Birame Souleye euh, job député bu yeewi askan wi nañ ko tegee loxo benoone ñu koy yóbbu su mandat de dépôt doon lu metti lool ay député yu yeewi askan wi fëgg nañ ci tabal ji euh, xam le ne nañ ko tegee loxo euh, dépowul ak yoon dañoo jalgati yoon jalgati sax article 61 bu constitution bi jalgati règlement intérieur bu assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci ay député yu yeewi askan wi yéen ki bi di le peuple quotidien di ñu xamleek Juan Branco di avocat Ousmane Sonko nguuruk France Fass eh, jot na ko clamé eh, fu mbaxana doone benn yéen cabinet avocat bu Sonko bi lañ koy toppee mooy joxe ay xibaar yoo xamante ne mun na eh, xajamal nekkinu ñaar ci ay doomu France fii ci Sénégal yéen cabinet moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yéen cabinet di Le Quotidien di ñu dégtal waaxu Sénégal musiba gi ba léegi jeexagul li waaju ci wàllu barsa wala Barsaq yéen cabinet démb lii di ab gaal suux na ci waaxu Saint-Louis ba lu tolloog juróom bakkan rot ca lu tollook ñeent ñu jot leen ca sowe yéen cabinet lu ëpp juróom fukk ñoo ca newoon ca googule gaal ba léegi eh, tersegul eh, fa mu jógee am ñu jàpp ne eh, googule gaal Kafountine la bawoo libération di ñu la xew ca waaxu Saint-Louis Barça wala Barsax musiba ga ca amaat yéen cabinet guddik àllarba jàpp alxamis ci booru cinq heures du matin am na fa gaal goo xamante ne suux na fa ñeent ñoo xamante ne jot nañ leen ca sowe gaal ga la mu yeboon juróom fukk fukki doomi aadama juróom benn am na ci juróom benn ñoo xamante ne àndutook euh, ànduñook seen bakkan teeri euh, ca tefes euh, bu Saint-Louis yéen kaabi di Sud Quotidien xëy du ñu dégtal njàngale mi baccalauréat ren ji ak BFEM bi soobu nañ ci BFEM bi nag candidat yi takku nañu lool ni ki démb lañ ko door fas yéene ko tollantiwaat tey ji ci àllarba ji ak ëllëg ci a ajuma ji yéen kaabi di la dépêche républicaine baccalauréat googe fës na lool ca njaareem ndax moom la lycée d'excellence bu Diourbel am ci baccalauréat gi yéen kaabi di réew mi quotidien xëy duñu dégtal la tukkee ci ndaje conseil des ministres njiitu réew Sall sas na gouvernement bi ñu amal conseil interministériel waxtaane wàllu chemin de fer Dakar Tambacounda waaye nag waxtaane mbënd mi ak nees mun a def ngir gën a mu koomub Sénégal yéen kaabi di stade ne Sénégal a ngi waajal mondial 2026 tirage au sort éliminatoire euh, googule euh, mondial euh, tey ji ci ngoon dañu gindeeku ci Sénégal